jërë ngeen jëf yéen ñi tàmmu dakarnet point com ñu indi leen xibaar bi di xibaar bu tiis kii di kilifa di artist rappeur bokk ci groupe bi ñu naan kër gi moom ak caat waaye it di activiste bokk ci mouvement citoyen bi ñu naan yanamar moo ñàkk way juram bu jigéen waaye juróom bu jigéen bi nag di yaay faatu mi ngi génn àdduna dimanche bi ñu génn fële ca Kaolack ba ñu jébbal ko boromam toute la rédaction de dakarnet.com ñooy jébbal seen njaal kii di kilifa kilifa nag xàmmee nañ ko moom ak dakarnet di xarit waa dakarnet yëpp ba tax na dakarnet yëpp ñu ngi koy jëbal seen njaal di ko ñaanal way juróom boobu noonu yàlla na ko yàlla xare aljanay firdawsi te fépp fu ko way juróom boobu féete woon yàlla na ko fa yàlla féete amin